question est pertinente, mais euh, le président l'a mûrement réfléchi d'abord avant cette déclaration. C'est une chose qui a été préparée. Au, niveau de l'APR même. Vous savez que la préparation ah, a mais été gars, faite. Mais gars, euh, ceux qui ne sont pas dans dans. yoo xamoon nga ne président suis pas d' avec vous. parce que waa APR ñoo fi nekk doon def ay cérémonie d'investiture. laissez-moi aller au bout euh, donc xaaroo leen ko woon franchement. dina la ne dinaa la ne am na ñu ko xaaruloon mais eh, décision bi déclaration bi ñëw na APR am na benn déggoo ci biir boo xamante ne du anu benn fusion comme nga confrère mu waxee. APR wala Benno Benno Bokk Yaakaar wax na ne ay tas yooyu je pense que ce euh, petit c'est fu mu toll tey Macky du bokk topp na lu mu waxoon ba ne du bokk. ngeen di naan APR dina tas je pense que loolu kenn war ko wax APR du tas. bennoo Bokk Yaakaar am na benn déggoo bu nekk seen biir waxtaan mooy am te waxtaan tàmbaleen depuis boobu balaa déclaration am te j'en suis et certain que du am benn problème te dinañ am benn candidat Macky ku ñu joxoñ dinañ ko jàppale baatu ko campagne te c'est que on va on va mais euh, Sidath yaakaar loo ne par exemple biir benn bokk yaakaar am outre Macky Sall ah, am yeneen leader yu fa nekk yaakaaroo ni euh, par exemple parti politique bu juddu bu nekk sa ambition moom mooy conquérir le pouvoir dem jël pouvoir bi mhm. mais mun nga nekk parti politique après nga fondre si benn coalition est-ce que yaakaaroo ni loolu ñoom bu fekkee ne dafa am ñoo xam ne ñoo nekk si biir coalition bi génn dem ne dañuy dem outil pour nekk président est-ce que nekkul du nga war a légitimer loolu plus que nga ne nga nga taxaw fii nga ne yaakaaroo li moom gën est-ce que loolu c'est pas normal en fait bu de surcroît bu fekkee ne amul koo xamante ne autour de kii mën na am consensus. gis nga comme li nga wax tous les chefs de de de de coali de ces coalitions waxtaan am na avec son excellence le de la donc tënk nañ lu ñuy tënk ba pare mu déclarer c'est pas dans le vide donc tout ce qui ñuy nekk di divaguer di spéculer comme ça je pense que waxtaan day am te je sais que Benno Bokk Yaakaar restera fort. Hmm. on va gagner les élections.